arbitre sifflé na capitaine moo ngemboo rouge blanc bi moom capitaine école de la jóge moom ñooy le waatoo Calamber waar Fadel a toog ca ba ma ngi Yékini Junior Fadel yaa indi Cal muy lewtoo ak capitaine ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk wala boog Kébémer moo teg pied droite capitaine teg pied gauche école Daline Bara Dione écritor war Thial Thial xanaa da bëgg a xeex Kébémer capitaine ñoom ñaari ngi leewaatoo Papa Ndiaye ñaari mbër yaa ngi leewaatoo waaye bu leen ko fàtte le 29 octobre diggante Pokola Balde ak Gackou 2 taw nañ dóor Thial taw na yooru yooru nañu tibb tànkam mu mbot daan na ko jël bu rëy eh Kell bett na ma mais Kell bii bett na ma de Kell mer Kell da ngay mbot kon Kell day mbot Pape Pape Kell mbot na ko laay laay la laa mais Kell mii bett na ma de Pape Kell day mbot. ah jël bi rafet na de Lamine. nu mu ko daanee. da koo mbot. luy mbot. teg ci pooj bi rek yóbbu. nu ñuy mbotee. teg ci pooj bi rek yóbbu. ban tànk koy def. ah. ban tànk koy def. tànk. laa la illallaah waay tel waay Fadel Fadel dugg na ci géew ba Fadel dugg na ci géew ba eh Fadel tey tey mbaru Fadel bi daan na Fadel nag moom dama ko yaboon waaye tey moom tey moom toog na ci sees bi assuré ko Fadel tey buñ la daanoon naa la kaañoo kaañoo Yékini si ñor écritoire waar bu Yékini Junior écurie Dóor waar bu Brise de bu Grand Médine bu Ndongolo bu Pamorlo bu caatu puyel bi caatu moom tamit war a bëre le 29 digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Ama bu Malika Thiel Mbert ànd ko da koo mbot Pape da pap cala danna nabi nabi daa kontaan nabi bu anaconda mais mais mais lii lan la barke sëñ Touba Mbacke dafa mën a bëree man daf maa bét barke alxuraan nii la daanee fi sa bal du fa dugg du fa dugg mu yóbbu la top maa la wax di ko ñaanal yàlla na ko ndam bi jig nag mais grand bu baax la baag seen Tuubaa Mbàkke kon parcelle da ngeen am ndam tey billaay walaay mbër ngi nii am nga combat de ponkal ngay bëreel de ponkal mooy loolu garaaw min naa bëri ponkal jàll nga andi woon tey jàll laa ñu andi woon waaw wër na Serigne Touba waaw li mu def dara beetu la non non moom wet bi moom kenn si dugg moom waaw wet gi kon waaw mër wet la tànk bi kenn fa dugg ku ko jàngal bëre moom cal ko mer ko som xanaa ko som ay ko som yow ku la jàngal bëre. man père